الحب اللي عمره ما يشمت asalaamaaleykum mbokki déglukat yi seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall moo dellu siwaat ak yéen ci sunu émission kàddu gu sell gi te di leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di dellu di sant yàlla sunu boroom ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist asalaamaaleykum mbokki auditeurs yi seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall moo leen di nuyu dellu siwaat ak yéen ci sunu émission kàddu gu sell gi mu doon émission bi njëkk ci at bu bees bi may ñaan yàlla sunu borom mu doon atu jàmm mu doon atu naataange mu doon atu aafiya mu doon at boo xam ne lépp li nga xam ne ay yéeneem la woon ci ñun dana ko mottali te sunuy xol dana ubbeeku gën a ubbeeku ci moom sunuy xel di gën a dem ci moom ñuy gën a wéetal yàlla sunu boroom di gën a bàyyi xel ci moom mbokki auditeurs yi ku ci nekk ci turam ak santam maa ngi lay nuyu te di la ndokkeel ci at bu bees bi yàlla sunu boroom ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ may nañu ñu dugg ci at bu bees bi at bu bees bi nag ñu dugg dama ci bëggoon waxtaan tuuti di xool li nga xam ne moom lañu téere bu sell bi jàngal kàddu gi yàlla gi wax ci li jëm ci sant yàlla ci lépp li nga xam ne dafa nekk ay ngëneel mu koy wàccee sunu kaw bu doomu aadama dundee at ba mu jeex ba muy dugg ci at bu bees waru garam mooy mu gestu ginnaawam xool li nga xam ne def na ko dundee na ko ci at bi wees li nga xam ne ay rëq-rëq la mu defaraat ko li nga xam ne lu jara naw la mu gën ko dëgëral ci at bu bees bi nga xam ne dëgmal na ko rax ci dolli nag mu sant yàlla sunu boroom mi nga xam ne moo ko may mu génn ci at duggaat ci beneen at dañuy wax ne benn at boo ko jëlee nekk na ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ci ay bés yoo xam ne moo nekk ci at bu nekk boo jëlee at yooyu fan yooyu nga xayma ko ci ay waxtu te bés bu nekk doon ñaar fukki waxtu ak ñeent da ngay gis ne dana nekk juróom ñetti junni ak juróom ñaari téeméer ak juróom fukk ak fukk ak juróom kon ma baamtu ko waat boo jëlee ñetti téeméer yooyu ak juróom benn fukk ak juróom nga misaal ko ci ay waxtu dana nekk juróom ñetti junni ak juróom ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ci ay waxtu yoo xam ne doomu aadama yi dund na ko nooyi na ko nokki na ko kon bu la yàlla sa boroom mayee lu demee nu mel noonu nga dund ko kon boo demee bay duggaat ci at bu bees li la war mooy nga sukk sargal ko sant ko gërëm ko ci dund goog nga xam ne jox na la ko loolu moo tax damay dellu ci kàddu gi yàlla ci téere bu sell bi jàng li nga xam ne moom la daawuda tënk def ko ab bayit mu nekk ci sabuur mu tuddee ko ma sant aji sax ci daawuda da daan xool boppam xool digganteem ak yàlla boroomam yàlla sunu boroom muy gis ay ngëneelu yàlla sunu boroom ci dundam muy gis ni ko yàlla sunu boroom di taxawee muy gis ni ko yàlla sunu boroom di taxawoo di jàppale muy gis loxo yàlla sunu boroom ci ni muy dundee daawuda daan toog ànd ak dal jël ay waxtu yoo xam ne wala ay fan yoo xam ne du ci def dara lu dul sant yàlla mi ko xam ne moo ko defal ngëneel yu mel noonu moo tax boo jàngee ci saboor ci aaya téeméer ak ñett bi nga xamee ne mi ngi ko dippee ma sant aji sax ji mi ngi wax naan naa sant aji sax ji ci sama xol sama jëmb jépp di saabaabal turam nee na naa sant aji sax ji ci sama xol sama jëmb jépp di saabal turam daawda di wax foofu di wax ak boppam daawda di yedd boppam daawda nekk nit koo xam ne dafa am fàttaliku nit koo xam ne dafa am kóllëre te kóllëre googu doxoon digganteem ak yàlla sunu borom ak yàlla boromam moo tax mu xool boppam wax ak boppam ne kat naa sant aji aji sax ji ci sama xol mi ngi wax ak boppam mi ngi wax ak xolam mi ngi wax ak ay cëram naan man mii daaw da nga xam ne yàlla moo ma sàkk yàlla moo ma aar ma nekk ab tuut tànk nekk ab sàmm mu jëlee ma ci biir gétt yëkkati ma def ma buur bani Israël jox ma kàttan boo xam ne benn noon musul taxaw sama kanam jox ma martaba boo xam ne kenn musu ko am nee na kan kon man daawuda dama war a sant yàlla dama war a delloo njukkal yàlla sama boroom moo tax mu ne ci sabuur na naa sant aji sax ji ci sama xol sama jëmm jépp di saabal turam nee na jëmmam nee na ay cëram nee na lépp li nga xam ne mi ngi ci moom na delloo njukkal yàlla sunu boroom mi nga xam ne moom moo ko may mu toll fi mu toll mu yokk ci ne te bañ a fàtte mbooleem xéewalam daaw daa ngi wax foofu naan moom daawda na sant yàlla na màggal yàlla na delloo njukkal yàlla boroomam te bañ a fàtte benn xéewalam kon ñu gis foofu ne daawda yëg na ci dundam ne yàlla mi ngi koy jox ay xéewali xéewal du caageenu buur la du caageenu dafa judd judd bu rafet du caageenu dafa bokk ci yax bu rëy comme niñ koy waxee fii ci Sénégal du caageenu dafa am xel dafa am xalaat dafa am kattan dafa am ay pexe déedéet yàlla boroomam yàlla sunu boroom la soob xéewal yooyu wàcc ci dundam yàlla sunu boroom la soob mu jël ko moom daawuda mi nga xam ne ab sàmm la woon mu def ko buur moo tax mu ne te bañ a fàtte mbooleem xéewalam xéewal yooyu nga xam ne wàll si na ci biir dundam xéewal yooyu nga xam ne yëg na ko ci biir dundam ba mujj nekk buur yore ndombal tànk bi gën a rëy ci biir is bani Israël daawda mi ngi delloo yàlla sunu borom njukkal ne ko kat loolu yow la soob mu mën a nekk yow yaa ma ko may te du ci samay pexe mbokki auditeurs yi nañu xool at bi nga xam ne génn nañ ko ak at bi nga xam ne ñu ngi koy dugg ñaata fan la la yàlla sa boroom jox loo sutur la ñaata yoon la yàlla sa boroom nga yeewu subateel mu sàngalu sutura nga xëy wàcc indi li nga xam ne soxla nga ko li nga xam ne moom nga wuti woon nga am ko ba mu mat sëkk ñaata yoon nga feebar yàlla sunu boroom wéral la ñaata yoon nga ko ñaan mu nangul la ko ñaata yoon nga xëccu mbir yàlla sunu boroom kat ni lii danaa la ko may ñaata yoon la yàlla sa boroom sàng la sutura kon boo geestoo xool sa ginnaaw ca dëgg-dëgg da nga gis ne xéewalu yàlla sa boroom wàcc na di wàcc sa kaw ci at bii nga génn ba yaa ngi dëgmal at bu bees kon li nga xam ne mooy sunu waru gar li nga xam ne moom la doomu aadama war a def mooy delloowaat xelam ci yàlla ne ko kat maa ngi lay gërëm maa ngi lay sant te duma fàtte mbooleem xéewal boo mës a dugal ci sama biir dund yenn saa yi doomu aadama dafay réere mbir danaan bërét li mu soxla yépp nekk ci kanamam danaan bërét aajoom yépp faju danaan bërét yàlla sàng ko sutura mu lekk mu naan mu wodd ak yeneen ak yeneen sax dab ko mu fëgg dëndam nekkat lii sama kàttan laa ko amee lii ci samay pexe laa ko amee téere bu sell bi nañu déedéet yàlla sa boroom moom moo wàccee xéewal yooyu ci sa dund kon delloo ko njukkal amal kóllëre sa digganteeg moom moo tax daawuda tënk bayit bu am solo bi ci saabur tàmbalee ko naan naa sant aji sax ji ci sama xol sama jëmm jépp di saabal turam kii lii moom mooy taxawaayu nit ki nga xam ne ku am kóllëre la te mi ngi fàttaliku kat di bàyyi xel ne boo tollee fi nga toll yàlla sa borom la soob moom moo wàccee xéewal ci sa biir dund kon mbokki auditeurs yi ñuy wéy di jàng li nga xam ne moom la Daawuda bind jagleel ko yàlla sunu boroom mu nekk ci téere bu sell bi téere bu sell bi di wax Daawuda bind ne moom moo lay wéral foo woppee yàlla sunu boroom di ñu jox wér gu yaram yàlla sunu boroom di ñu may bu ñu yeewoo subateel ne bërët ci sunuy lal mën a sangu sol sunuy yére dem doxi sunuy yitte dem liggéeyi dem def li ñu war a def yàlla sunu borom di ñu may ñu ànd ak cawarte yàlla sunu borom di ñu may sunu cër yépp di yëngatu ni mu war a yëngatoo tànk bi di dox loxo yi di yëngatu bët yi di gis nopp yi di dégg bakkan bi di noyyi sunu cër yépp di dox yàlla sunu borom may ñu lu mel noonu wopp ñu wala boog bu dee sax wopp dal nañu mu wéral ñu bu dee wopp dab nañu mu wàccee yërmandeem ci kaw ci sunu kaw ba ñu mën a wér kon lu mel noonu nañ ci sant yàlla sunu boroom bu ñu woppee dem ci hôpital yi wala dem ci dispensaire bi yàlla sunu boroom jox docteur bi xam-xam ak pexe yoo xam ne dana fa jaar ba faj la déedéet dëgg la ne docteur bi baax na fa dëgg la ne docteur bi liggéey na wante ki sabab mbir moomu mooy yàlla sunu boroom ki nga xam ne moo la wéral mooy yàlla sa boroom moo tax daawuda di ñu fàttali ne moom moo ñuy baal te moo ñuy wéral bu ñu woppee bu ñu amee wér gu yaram nañu delloo njukkal yàlla sunu boroom bu ñu wéree fekk ñu génnoon ci wopp nañu delloo njukkal yàlla sunu boroom ñi nga xam ne ñi ngi yeewu ci seen lal di dox seeni yitte waxuma la sax ñu bàyyi ba at bi jeex wante saa su nekk buñ nee bërit li ñuy war a njëkk a def mooy sant yàlla sunu boroom mi nga xam ne moo ñu may ñu mën a nelaw ak jàmm yeewu ak jàmm ànd ak wér gu yaram ñi nga xam ne ñi ngi ci hôpital yi ñi nga xam ne wopp daboon na leen feebar dab na leen ñu dem ba tey jii génn nañ ah buñ nekkat seen poos diis na moo tax ñu mën a dagg billet jël avion dem ba dëkk tugal yi faju ñi nga xam ne wopp dab na leen ñu dem ci hôpital yi ñu faj leen ba ñu wér nañu delloo njukkal yàlla sunu boroom ndaxte moom la soob moo ñu wéral lu tax mu def loolu mooy cofeel bi mu am ci ñun lu tax mu def loolu mooy yërmande bi nga xam ne am na ko lu tax mu def loolu mooy mbëggeel bi nga xam ne am na ko ci doomu aadama loolu moo tax téere bu sell bi yàlla sunu borom di ñu fàttali ne doomu aadama bi war na di sukk ci kanamam saa su nekk di ko sant di ko gërëm ci ay xéewalam yi nga xam ne mi nga wàcc ci dundam xéewal yooyu jëm ci wérgu yaram gi mu am xéewal yooyu jëm ci sutura bi nga xam ne mi ngi ko koy suturaal xéewal boobu jëm ci fu bari fu bari fu bari xéewal boobu yàlla sunu borom di ko wàccee ci sunu kaw ngir cofeel bi nga xam ne daf ko war a daf ko am ci ñun moo tax waruñu xaar sax ba at bi jeex comme ni ma ko waxee woon sànq saa yu ñu yeewoo doomu aadama bi saa yu ñuy saa yu yewoo muy ku góor ki muy ku jigéen ki muy tuut tànk bi sax dañ leen war a jàngal ñuy sant yàlla seen boroom ñuy delloo njukkal yàlla seen boroom ndaxte moom la soob ay xéewalam di wàcc ci sunu dund doomu aadama bi warul réeree ci dëgg-dëgg ne lépp li nga xam ne wàll si na ci dundam te muy ay xéewal yàlla sunu boroom moo ko jox dafa amoon buur boo xam ne buur bu amoon tur la buur bu amoon kàttan la te jamono yi nga xam ne buur la dem na ba àdduna sépp moo ci tegoon tànk dëkk yépp moo leen yilifoon te boo jàngee ci téere bu sell bi ci bataaxal bi nga xam ne jagleen nañ ko Daniel Daniel bind ko buur boobu moom mooy Nebukadnetsar yàlla sunu borom dañuy jàngal ne amul lu ko tëwoon amoon na alal amoon na xam-xam amoon na armée boo xam ne soldat yi fa nekkoon ñu xarañoon lañu mënoon na lu bari ba bés mu beew fëgg dënnam ne sama dooleeg sama kàttan moo ma may lii yàlla sunu boroom feeñu ko ci gént bi mu jénnee ci gént boobu mu tiit woo ñi nga xam ne ñoo doon ñi ko doon xelal woo ñi nga xam ne ñoo doon boroom xam-xamu babilon yi mu ne leen kat dama gént dama ba bëgg a wax li ma gént ngeen wax ma ko kenn mënu ko tekki yàlla sunu boroom yëkkati Daniel Daniel ñëw tekkil ko gént bi wante li nga xam ne moo gën a am solo lu mu ko wax mooy def na ko yow buur bi yow Nebukadnetsar da nga fëgg sa dënd ne lépp li nga am ci sa kàttan la yàlla sa boroom ne la déedéet te dana la ko won nee na ko ci diir bu gàtt dana nangu lépp li nga yore woon da nga dem ba nga xam ne da nga mel ne rabu àll da nga dem ba dëkk ci biir àll bi da nga dem bay lekk li rabu àll yi di lekk boo demee nag ba sa xel dellu si ba nga delloo jukkal yàlla sa boroom bu boobaa ndombal tànk bi mu la joxoon dana la ko delloowaat ñu ne loolu dafa am Nebukadnessar mëj ñàkk lépp mëj doon waajoo xam ne danga koy mbéngaleeg rabu àll yi mu nekk ci àll bi di lekk ci ñax mi muy taw ci kanawam amul fu mu dëkk ndeysaan ba xelam dellu siwaat mu ne ah ci dëgg-dëgg man de beewoon naa yaakaaroon naa ne sama juddu yaakaaroon naa ne ci sama xalaat yaakaaroon naa ne ci sama deret yaakaaroon naa ne ci samay maam laa amee lii lépp ndaxte kat man buur bu amoon tur la wante kat ci dëgg-dëgg xam naa ne yàlla rek moo nekk yàlla rek mooy aji sax ji mu delloo njukkal yàlla bi mu defee loolu yàlla sunu borom delloo ko waat ci li mu nekkoon mu nekkaat buur di sant yàlla sunu borom kon ñu gis foofu ne nit boo beewee yaakaar ne kat yow li nga am wala li ngay def wala xéewal yi nga xam ne mi ngi ci sa dund yaa ko liggéey yaa ko sabab bu boobaa réer nga te yàlla sa borom dana la ko won mbokki auditeurs yi yàlla nañu yàlla sunu boroom soob ci di ko delloo njukkal di dawal kóllëre sunu digganteeg moom ndaxte mooy ki nga xam ne moo ñuy may mooy ki nga xam ne moo ñuy jox mooy ki nga xam ne mooy wàccee ay yërmandeem ci sunu kaw yàlla sunu boroom nañu danaa wàllis ci seen biir yàlla sunu boroom nañu mankat danaa leen jox loo xam ne dana nekk sérité bi ëpp solo boo leen mës a am te doo leen am mukk bu mel noonu yàlla sunu boroom ne danaa leen yónnee kenn danaa leen may kenn muy Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ téere bu sell bi dañuy wax ne moom moomu Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ mooy li nga xam ne moo ëppoon solo ci yàlla mu nañu ñun doomu aadama lii kat jébbal naa leen ko yàlla sunu boroom jël li nga xam ne moo ëppoon solo ci moom li nga xam ne féete na ko foo xam ne dara musu ko fa féete mu ne lii danaa ko jël jébbal ko doomu aadama may ko ko ngir cofeel ak yërmande bi ma am ci moom yàlla sunu borom ne jox naa leen seydina isa almasi bi yeesu christ muy sërita muy may muy loo xam ne dama leen ko jox te doo leen ci fay dara téere bu sell bi di ñu wax ne moom seydina isa almasi bi yeesu christ mooy melakaanu yàlla ji kenn gisul mooy taaw bi ki gën a màgg lépp luy mbindeef ndaxte ci moom la yàlla sàkk lépp lu nekk ci asamaan ak suuf lu ñuy gis ak lu ñu mënul a gis muy buur muy njiit muy kilifa mbaa muy borom sañ-sañ lépp lu ñu sàkk ci moom lañu ko jaarale ci moom lañu ko jëme laata dara di am fekkoon na mu nekk te lépp a ngi jàppoo ci moom yàlla sunu borom nag nañu kooku moom laa leen jagleel kooku moom laa leen jox kon doomu aadama war a sant yàlla ci loolu nga xam ne may nañu ko loolu nga xam ne jagleel nañu ko loolu nga xam ne jébbal nañu ko muy Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ wante Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ moom nga xam ne yàlla sunu borom jox nañu ko te ñu war a sukk suñuy oom ci suuf sant ko ngir loolu dafa am lu mu ñu indaaleel téere bu sell bi di ñu wax ne ndaxte soob na yàlla mu dekkal matam gépp ci moom te jaar ci moom jubale lépp ak boppam muy ci kaw asamaan yi mbaa ci suuf nee na loolu kooku nga xam ne may nañu ko moom mooy ki nga xam ne yàlla sunu boroom jaar na ci moom ngir jubale lépp ak boppam kon képp koo xam ne tey jii juboo nga ak yàlla képp koo xam ne bëgg nga juboo ak yàlla xamal ne yàlla may na la pexe bi yàlla ubbil na la bunt bi te mooy Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ moo tax yàlla sunu borom dañuy wax ci téere bu sell bi ne ndaxte soob na yàlla mu dekkal matam gépp ci moom maanaam mat googu nga xam ne yàlla sunu borom mat na ko fekk nañ ko ci Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ mi nga xam ne yàlla jox nañu ko mu wax ne te jaar na ci moom jubale lépp ak boppam muy ci kaw asamaan yi mbaa ci suuf mu wàccee jàmm jaarale ko ci deretam ji ñu tuur ci bant ba yàlla sunu boroom jubale ñu ak boppam ba pare nag jox ñu jàmm dañuy wax fii Sénégal ne jàmm ci la lépp xaj yàlla sunu borom ne jàmm jooju nga xam ne dox na seen digganteeg man jàmm jooju Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ moo ko indi ci suuf jàmm jooju nga xam ne dox na ci diggante doomu aadama ak nit ba nga xam ne daaw daa ngi woy daaw daa ngi bind naan kat yàllaa ngi ñuy muñal te du ñu topp ci sunuy bàkkaar kooku Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ moo ko liggéey jàmm ji nga xam ne dox na sunu digganteeg yàlla sunu borom ba nga xam ne du ñu topp ci sunuy ñaawteef ba nga xam ne mi ngi ñuy baal saa su nekk ba nga xam ne mi ngi ñuy muñal yàlla sunu borom mi ngi yëgal ci téeram bu sell bi ne kat jàmm jooju mooy Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ moom la ñu jox jubale ñu ak boppam te wàccee jàmm sunu biir wàccee jàmm ci digganteem ak ñun budul woon moom yàlla sunu borom dana fayonteeg ñun budul woon ak Seydina Isa almasi bi ak jàmm jooju nga xam ne liggéey na ko bi mu tuuree deretam ci bant bi kon yàlla sunu borom dana ñu topp saa ñu defee ñaawteef ñu gis ndogalam mu dal sunu kaw téere bu sell bi di ñu wax yàlla sunu borom dañu wax ne ñaar indil nañu ko ba tax na at bii ñu génn ak at bii ñuy dugg war nañu jaajëfal yàlla ci ñaar yooyu bi ci njëkk mooy jubóole nañu ak yàlla sunu borom ñaareel bi mooy indi na jàmm sunu digganteeg yàlla sunu borom kon bokk auditeurs yi ñu gis foofu ne at bii ñu génn ak at bii ñu dugg jàmm ngi ci sunu kaw ndaxte yàlla sunu borom liggéey na jàmm jooju ba pare jaarale ko ci Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ at bii ñu génn ak at bii ñuy dugg juboo sunu digganteeg yàlla sunu borom am na ndaxte liggéey na ko ba pare mu jaare ko ci Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ bi mu joxee boppam bi mu tuuree deretam ci bant bi moo tax nañuy delloo njukkal aji sax ji moom mi nga xam ne bi jànq bi ëmbee bi soxna Mariama ëmbee malaaka bi ñëw dafa ne soxna Mariama ne nit ñi nga xam ne ñu ngi woon foofu jamono jooju ne leen kat jànq bi dana ëmb te na jur doom ju góor ñu tuddee ko Emmanuel lii tekki yàlla ganesi nañu yàlla ganesi nañu yàgg na yàllaa ngi sunu biir te yàllaa ngi wéy ci su nekk sunu biir kon ñu war ko ci sant yàlla wan nañu boppam ndaxte Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ mooy melokaanu yàlla mi kenn mësul a gis Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ mooy melokaanu yàlla mi kenn mësul a gis kon nañu sukk sunuy óom ci suuf sant yàlla sunu boroom delloo ko njukkal nañu wax sunu bopp nañu wax ak sunu bopp ku nekk ne sama xol santal aji sax ci moom mi nga xam ne moo ñu jox Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ mbokki auditeurs yi maa ngi ñaan yàlla sunu borom ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ yàlla na yàlla saxal jàmm fii ci biir Sénégal ci at bii ñu dugg muy 2014 ak ci at yi nekk ci sunu kanam yàlla na yàlla sunu borom saxal mbokkoo fii ci biir Sénégal wante yàlla na yàlla sunu borom liggéey ci xolu ku nekk mbindeef boo xam ne yaa ngi yewoo fii ci biir Sénégal ba sa xol ak sa xel dellu ci yàlla sunu borom yàlla na yàlla sunu borom liggéey ci mbindeef boo xam ne mi ngi yewoo fii ci Sénégal ba nga xam ne danañ ko ragal danañ ko sopp danañ ko wéetal te danañ dund dund bi nga xam ne moom la namm ci ñun yàlla na yàlla sunu boroom wéy di jàppale ñi nga xam ne ñoom ñoo yore nguur gi ñi nga xam ne ñooy sunuy njiit te yàlla teg leen ci sunu kanam bi ci njëkk mooy ki nga xam ne moom moo jiitu moo jiite réew mi muy président de la république moom ñi ngi ñaan yàlla sunu boroom mu wéy di ko jàppale ci li nga xam ne ay yéene la mu am ko ci biir Sénégal yàlla na ko yàlla sunu boroom dimbale ba matal yéene yooyu ndaxte li nga xam ne mooy mbébétam te ñu dégg ko mu koy wax mooy li jëmaleek askan gi kanam kon yàlla na ko yàlla sunu boroom jàppale ci mbébétam boobu yàlla na yàlla sunu boroom jàppale képp koo xam ne kilifa nga fii képp koo xam ne am nga ndombal tànk ci anam boo nekk nag di ci yëngatu yàlla na la yàlla sunu boroom dimbale jàppale la ba nga xam ne dana nekk yokkute ci askan bi yépp yàlla na yàlla sunu boroom wéy di ànd ak ñi nga xam ne ci dëgg-dëgg saa yu ñuy yeewoo li nga xam ne moom la ñuy xalaat rek mooy lii ay ngëneel fii ci biir askan bi liy jëmale askan bi kanam yàlla nañu yàlla sunu boroom jàppale ba koom-koomu réew mi jëm kanam ba nga xam ne képp ku yeewu rek suba teel képp koo xam ne yeewu nga rek da nga am ci loo yëngatu ba am loo suturlu te yàlla sunu borom mën na def lu mel noonu yàlla na yàlla sunu borom dimbale Sénégal rawatina ñi nga xam ne ñi ngi ci kaw gi ba nawet bii nga xam ne ci la ñu jëm mu doon nawet bu baax nawet boo xam ne ci dëgg-dëgg ndox dana am nga xam ne mbay mi dana jëm kanam ndaxte fii Sénégal ñi fi ëpp dañuy bay kon yal na leen yàlla sunu borom dimbale wàcce ay xéewal jox leen nawet boo xam ne ci dëgg-dëgg nawet bu bu baax la yal na ko yàlla sunu borom def ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ yal na yàlla sunu borom dimbale ñi nga xam ne ay néew ji doole lañu ubbi leen ay buntu xéewal wan leen yërmandeem ba ñu am lu ñuy yëngatu ba nga xam ne lépp lu ñu soxla mu jëm ci fu ñu dëkk mu jëm ci koddaay mu jëm ci lekk mu jëm ci naan mu jëm ci faju yal na leen yàlla sunu borom dimbale ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ ba at bii nga xam ne ñi ngi ci ak at yii ñu jëm ngeen am ko ba mu mat sëkk yal na leen yàlla sunu borom wéy di may loo leen xéewloo saa su nekk mbokki auditeurs yi seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall moo nekkoon ak yéen ci sunu émission kàddu gu sell gi may ñaan yàlla sunu boroom ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ yàlla na yàlla wéy di wàccee jàmm fii ci biir Sénégal amin mbokki déglukat yi fii lañuy yemale sunu émission maa ngi leen di sant ci déglu bi te di leen fàttale sunu téléphone di 77 074 35 35 yàlla na yàlla sunu boroom wéy di leen barkeel tey wàcce ay yiwam ci seen kaw ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ mën ngeen jokkoo ak ñun ci 77 074 35 35
Devant eux,